بسم الله الرحمن الرحيم لئن سكرتم لأزيدنكم لرب كريم واسين خير محبودي سكوري لدى داري وفي البحر والبيد لرب كريم واسع خير معبودي شكوري لدى داري وفي البحر والبيد إلهي حكيمنا في أنسو تفضلي قني ومخن جو duhu juudu taabidi gis nañ ni jamono lépp a évolué moo tax évolution mënut a ñàkk ku tedd ki wàccoon naa ñun lim bind bàyyi fi fi ñu toll kay li nu war a def mooy lan lan war a def nun ñëpp nun murit nun murit saadix nun murit saadix war na bi ci lan lan war a maase dellu si ci Matlabul Fawzayni bi nga xam ne fii la ko bindee woon ci ka radiallahu anhu ak Cheikh Salih te ba mu koy bind gaynde gi di dàq ngaraga fa ko cher ba mu ñëw wékku ko tànk ya gaynde ga bàyyi ko ngeen baal ma xañ ne jataay bi laajul woon loolu waaye e, dafa mënta ñàkk bu ko defee Cheikh Gana li ma ko waxoon ngir mu yëgle ko ci biis bi fukki fan ak benn ci weeru novembre kon na xam ne ni boo ne onzième mois ba noppi ne onzième jour muy novembre ñaari onze yooyu mooy mbàkke ku tedd ki am ci victoire bi mu ci am zahiran wa batinan fu ñu ko mën di defee ci àdduna baax na fu ñu ko mën a feete ci àdduna bi baax na waaye fii la gën a yelloo te bu gën a yellee fii daaru ma naan gii la gën a yelle la tax mooy ba mu jógee daaru salaam ñëw fii ci Cerno Cerno génn kër gi ni du fa duggaat ba ndigal ko fa dugalaat loolu moo tax ñu koy amale fii ci kër Serigne Touba gii ci Daaru Manaan bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi waa adduna noo ngi leen di nuyu ci kaddu Serigne Ahmadou Kara Mbacké Noreyni général Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci béréb bu tedd bii di Daarul Mannaan ci jataay bu am solo bii nga xam ne ku gis mbooloo mii fi teew ak ci teewaayu sëriñ bi xam ne am na lu waral daje bi loolu moo di bis bu nekk ci sunu kanam di ko dëgmal wara doon fukki fan ak benn ci weeru novembre di no di novembre di bis bi nga xam ne ci la ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jóge woon ca tukkeem bu woom bu rëy bu kawe bu yaatu boobe wàccaat ci réew mi di Sénégal ëndaale yiw ak ngëneel ak tiyaaba yu dul jeex mukk yoo xam ne nit du yaxantu ba am lu ñu toll nit du jihaad ba am lu ñu toll nit du aj ba am lu ñu tollu lam ëndaale mooy lan yërmande yàlla du ju daj ñëpp loola la ko kenn ca mag ñu doon tagge ba mu koy wax la xat rajaxta bi ma lam yarjian na bihi zul hajji wal xaswi aw suutar jirmin rafet yi wa jita rahmata rabbin la sharika lahu li zalimin wa aqi sabqin wal muxtasidi yërmande yàlla jooju la ëndaale bis boobu nag di 11 novembre doonoon 1902 tey ñu nekk ci weer wi weer novembre ci atum 2022 Cheikh Amadou Kara général mi nga xam ne guddeem bëccëgam subaam ngoonam ay jéegoom ab yëngoom ak dalam lépp mooy sant ku tedd ki ba ku ko miin miin ñoñam dégg jërëjëfa Serigne Touba jërëjëfa Serigne Touba waaye wane ñu it ne doy na sëkk wéeruwaay doy na sëkk it làquwaay mu jël bis boobu nag moom nga xam ne bisum ndam la victoire la ci lislaam bis la boo xam ne Serigne Touba waxoon na ne defal sama dellu gii ci réew ma di texe képp ku di ab jullit waaye def ko muy ak mucc ëllëg yowmal xiyaamatul akbar bis boobu nag la Serigne bi jël di ko woote fii ci fan Touba ci fan Daarul Mannaan di béréb bi nga xam ne sëriñ Touba bi mu jógee ci géej gi te jaar ci béréb bi mu jaar ba daar Daaru Salaam dafa ñëw Daarul Mannaan fi la jóge waatoon dem gànnaar mu woote ko fii ci kër Serigne Touba gi nag muy la 11 novembre bis boobu nag lan moo tax Serigne bi di ko woote. nee na delloo njukkal ak sargal cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne kenn ku ne xam na ne woyefam sëñ bi nee na ak lewetam akuk yaatoom akuk biiram ak bëgg a dimbaleem ñëppam nee na moo tax na mu bëgg cee jariñaat ñëpp nu ànd moom mu jiite loolu ñu sargal ko waaye sargale ko ci bisam bii nga xam ne ci la Serigne Touba ñibbisi woon di ndam waaye sargal ko ci dëkk bii di Touba ci béréb bii di Darul ma sëñ Touba kat ba muy dem dafa waxoon ne. Euh, jox naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd turam yi di muntaqa wax na tagg ko yi tudd turam yi di muntaqa te lépp li yonent bi alayhi salaam ñu mënees ko barkee la ca moom lil muntaqa wajahtu qalbi wa yadi bi xidmatin wali xabaab bi af yadi matxu nabiyil muntaqa qaadali maalam yura shakli wa fi daareni shakli lan yura kon nag bi nee na ba muy liggéeyal yonent bi léppam la ko joxoon xolam ak jëmmam mu jariñeen ko lépp luy njariñ jox ko lépp lu du yiw léggéey ba mu ko doon liggéeyee it may ko mu yegg ci foo xam ne amul am kem tey amul kem am ëllëg moo tax sëriñ bi di ko woote la onze bëgg nag di ci jiital mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp bu ne mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp tàmbalee ci bunti këri Cheikh Mamadul Moustapha al Karim Cheikh Mamadul Murtada tàmbalee ci buntu kër soxna Fatija ba ci soxna may Maymuna ak mbooleem taalibe ak seex yi waaye béréb bii nu ak njabootu borom Daaru Muxti gi nga xam ne lu ñuy defal sëriñ Tuubaa borom ceer maam ceeru Ibrahima Fati mooy ki nga xam ne moo ca gën a yey ndax awlaa moo gën a jege moom la sëriñ bi waxoon ne mosula tàggoog man mosula juuyoog man moom la sëriñ bi waxoon it ne ko sama mbóot ci yow laa ko denc ci cerno moom laa waxoon it ne ko saa yu sa bët tegee ci mbind mi xamal ne gërëm naa la te duutuma la ŋaññi mukk ngërëm loo xam ne nag yàlla la bàyyi koo jaar ci rasulullah sallallahu ñëw ci man te bu cay bu du yem ca ngërëm la maa ngi sàkku ci yàlla mu may la la sa kem yëpp di ñeey adduna ak alaxira loola nag lu leeral la ku bët moo tax sëriñ bi di wax ne bis boobu daal da cee bëgg a sargal cheikh Mouhamadul Mountakha koo xam cheikh Mouhamadul Mountakha xam cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni xam ne ab junj laa ko juxañ ndax yàgg naa jël ay jëf jëme ko ci moom lii xew bu yëggul ku ne mën na koo misaal moo di waxtu wi nga xam ne sëriñ bi dafa tànn bisub juróomi fan ci weeru septembre muy bis bi sëñ Tuubaa taxawoon ci kanam góornóor mu doon bis bi nga xam ne ci lu julli ñaar rakka yi mu def ko bis bi nga xam ne moom mooy bisub anniversaire am ba koy taxawal di ko di ko def ca Ndakaaru ku ne gis ne jëf ci Cheikh Mamadou Mountakha def mooy yónni njabootam jël daamar ju yéeme na ko maa la ko jàppale ci liggéey bi ngay liggéeyal Serigne Touba loola nag mu def ko laxasaay moom ndax ku mas a am daamar lay sa yitte mooy fomp ba mu jekk di ko war mu ne ginnaaw lii ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha la bàyyi ko ab soññee la ci liggéey bi la ma fas yéene def nag mooy wut ay gaal yu jekk yoo xam ne ku ko séen xam ne xemmeemu na mu def ca xasaa yi di Cheikh Ahmadou Bamba yi def ko ca daamar ja ngir waggare ko delloo ko ca jëfi sëriñ bi ak la ko jëfal loolu doyut ci moom ca soññee ba mu ne kon na woote bis bii nag sargal ci Cheikh mu tax moo tax sëñ bi ne mi ngi koy yëgal ñëpp mi ngi koy yëgal fépp di ko wax ñëpp bis bi ci Daarul Mannaan naan lay amee ci kër Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ci mboolem teewaayu njabootu Serigne Touba geeg taalibe yi di ko yëgal ñëpp ak mboolem ak lu xasaayid yi ak mboolem ñi nga xam ne yëg-yëg bi ni am di dund Serigne bee di ko bàyyi xel sëñ baa ngi leen ciy woo ñaari wenn saan woo xam ne nag jam na ñaar ndax màggal ñibbi si sëriñ bi la waaye sargal ak delloo njukkoo Cheikh Mouhamadul Mountakha war na ku dib jullit rawatina ku dib murit ngir taxawaayam ak yitteem ak dogoom yërmandeem yaatoom baax na sëriñ bi noo dimbalee tax mënoon na koo defee fa ndakaaru waaye mu ne da koy delloo siwaat fii fi Touba fii lépp ame te lépp war a fee dellu siwaat di njariñ li moo tax Cheikh Ahmadou Kara nee na mi ngi ci woo ñëpp mi ngi ciy soñ ñëpp ku dégg wax jii nag nee na na xam ne mooy bataaxal bi waroon na ñëw ci yow mooy ndaw li waroon na ñëw ci yow mooy jëmmam ji waroon na ñëw ci yow daa ubbi rek woo ca ñëpp waaye mu ñëpp a ko bokk kon woo nañ ñëpp woo nañ fépp woo nañ képp bàyyiwul kenn wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu malaka ni duniyaa jee ko waral ci la ko yonent bi tànn maahindahu lixtaarahu muhammadu bi ko suñu borom di jox àdduna bi itam ak al axira la ko ca yonent bi la ko jox ndax man ko na xabli bi jaahi man huwa al wa uxra xayra ma axtar sa fawsi astaxfirullaha min samhi wa min basari wa min zamiri wa min fikri wa min kalimi ku tedd ki ba mu koy wax boppam taxul taxmis boppam taxul woon muy wax boppam taxul mu naan sirri xabihun di dox fil xal bi wal badani ku na xam na ne boppam taxul muy wax fa kulluna falyatub yarju Moussa dafatan astaghfirullaha adaafan mudaafatan dëgg la jàngkatu xasaayit moom xasida gu mu jekku di ko woy waaye ku tedd ki nag ay waxam daf ci am loo xamante ni bi maanaam sax manees na ko bañ a woy man li ma gën a taamu ciy woy mooy ku jóg di wax ci ku tedd ki la muy wax ku jóg di ko wax ci ku tedd ki la muy wax moom laa gën a taamu ci yooyu ku mel ni sëriñ Moussa wala sëriñ Mbaye jaxate wala Cheikh Samba Diarra Mbaye wala ñu mel ni ñoom li ñuy wax ci ku tedd ki man jàpp naa ni loolu sax moo gën a mata jara woy su ngeen gisee ma wax loolu lii dafa diis li may wax waxi malaaka la naqli a lawhil mahfuuzi abada ay waxam dafa diis iza katabtu taza arshul baaxi wa sabbahat malaa'iku tibaaxi dafa diis looloo tax man ma mën a woy lool te mënumaa woy mën a woy te mënumaa woy ma defal ma mën a woy lool jox ma ñetti baat jox ma grave jox ma médium jox ma aigu ba noppi te mënumaa woy waaye dara ndem la in shakartum la asidanakum loolu leer na ndem suñu boroom wax dëgg yàlla bi mu ko santee daa digal malaayika yëpp ñu koy sant jinne yi jébli yëpp di ko sant jinne yi doon yi jullit yëpp di ko sant mbas mas sa ñun moo tax sunu lépp nan ko defu kent te wax ngeen fi léegi alhamdu wa shukru mahan lillahi ala nabi wala di abdillahi nan jël lépp rek delloo ko ko dëgg la duma conférencier duma waxtaankat waaye dafa am yoon wu gàtt daal wum nu wutal taqsiran dëgg la yàlla moo ne ud'uunii astajib lakum yàlla moo ko wax waaye kan mooy jóg ci ñun defe ne am nga ijaaba wala salaamañ am na barke moom mi léppam barkeel ba noppi te mu tegal na ko fii nga am sa aajo mm. mën a ñëw xool waaye dafa am wutiin da ngay moom mi ngi lépp boo ci wut si nan ngay wutee jox na la tegtal bi niyatul xayr wa xawlul xayr wa fi'lul xayr wa mulazamatul mooy wuti nu kat du leneen da ngeen baal ma ak xam naa ni moo xam bu doon juróom-ñaari bayitam itam ci Matlabul Fawzayni ci waa Hizbut Tarqiyyah defe naa ni du wàññi dara ngeen tëje ko incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu الحمد لله الكريم ذي المنن على الثقال بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على الثقال بفرود وسنن سكت لأنه قد ساقني لوطني به نفى ما غني وقادني إليه بتحلي من بعد ما أزب بتحلي بالسلام تبعا على الذي قسي أن أتبعا على الذي من بمراد اهتدى في سر والجري يكون مهتدى